bokki jullit yi rawatina bokki taalibe yi rawatina ñi nga xam ne ñoo dëkke Touba ak li ko wër ak ñi seen yaakaar nekk ci Touba te fuñ nekk di Touba. ginnaaw bu nu sante sunu borom subhaanahu wa taala ci ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam feddliwaat sunu yaakaar Cheikhuna Ahmadul Khadim ñaanal sëriñ Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha sunu borom gën ko fee yàggal lool te doole ak wéram waaye ñaanal nag ndawam lii nga xamante ne bii. moom lay yebal ci lépp loo xamante ni war na caa dem te mënu caa dem muy ndawul yoon wi di Cheikh Mahamadul Basir yàlla na yàlla dëppale man-manam ak yéeney mag ñi ci barke Cheikhul Khadim sëriñ bi jox ko ndigal mu woote fii tey ci këram ci alxames ci daje boo xam ne da cee bunt mbooleem buntu kër yi Cheikh Ibrahima Fall yëpp woo ci it ñi nga xam ne ñoom la yàlla dénk zairus réew mi ci seen loxo muy ndawi état bi mboolem bunt kër yi maam Cheikh Ibrahima Fall yi ngi teew ki nga xam ne moom lañ dénk dëkk bi di chef de village bi it mi ngi teew jiite ko mboolem village yi fi nekk yëpp procureur bu Mbàkke mi ngi nii teew ànd ak sous-préfet ak commandant brigade bi ak commissaire bu police bi muy ndigal loo xam ne nag sëriñ bi da koo jox Cheikh Mahamadoul Bachir ci teewaayu sëriñ Cheikh Mbàkke mu sëriñ Abdou Latif mi nga xam ne mooy ubbi jataay bi su yëkkatee ay kàddoom ba noppi ñu jox sëriñ daam sooda mi nga xam ne mooy wax ci turu sëriñ Amdi moom moom sëñ Modou Mbenda moom maam Cheikh Rahima Fall mii xalif sal de Baye Fall ñu koy ñaanal gudd fan gu ànd ak wér bu yëkkatee kàddoom ba noppi danañ jox sous-préfet mu yëkkati ay kàddoom su noppee Cheikh Mahamadul Basir dana tëj jataay bi kon ñu bàyyee kàddu bi sëriñ Cheikh Mbacke mu sëriñ Abdou mu yëkkati kàddu yi nga xam ne mooy jiitu laata sëriñ bi di wax. Ah, asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. kon bokki taalibe yi fi daje. nu ngi leen di nuyu jiitu Cheikh Mamadou Bachir moom Cheikh Abdou Khadir mi ngi ndawul sëñ bi ni ko fàllu waxe léegi yore kàddoom di tànkam di ko taxawal fa mu war a taxaw te mënu faa taxaw di ko waxal lu mu waroon a wax te agu je mu suñ woote woon démb ab ay kàddu yoo xam ne moom la moom la doon dénkaat di ko dolli ci ndénkaan yim dénkoon sëñ Moustapha moom sëñ Modou Mbenda mi fi nekkal Cheikh Ibra mu jëmee na ko ci këri Cheikh Ibra yëpp te waxtu bu nekk mu yëkkati ndigal di ko jëmee ci moom ñu di ko jàllale ba ndigal ndigal li ñu mujj nekk te nekk ci tem yaatu lool mooy sàmm war may dëkk bi loolu defe naa ne dégg ngeen ko ay yoon wax nañ ko ay yoon itam sëñ Dame Soxna mii nga xam ne mooy kàddu sëñ am di googee wax na ci ay yoon démb nag sëñ bi woote waat Cheikh Ba Serigne Bassirou woon ci watu sëñ bi sëñ bi moo ko joxoon ndigalul woote bi mu ñëwee sëñ bi doon leeralaat rek liggéey bi ak solo si maam ak ni ko dëkk bi laaje ak ni ko jamono laaje ak lam ci xalaat moom sëñ Muntaxa ak la Cheikh Abdoulaye waxoon ak lam ci xalaat ne jamono dolli na ko lépp mu wax ko sëñ Muntaxa wax na ko ci mu nekk wax ko njabootu Cheikh Ibrahima gépp waxoon sëñ Basiru nag ne ko tey jii na wootewaat ci këram leer gën koo leeral ginnaaw bu sëñ daam leeralee lewoon ci kayit ba sëñ Bas dana ci dolli ay kàddoom yoo xam ne kàddu yi sëñ bi jëm ci mbokki jullit yëpp jëm ci bokk Sénégal yëpp rawatina mbokki taalibe yëpp rawatina ñu dëkkee Touba ndax Touba daa lu ci borom ñaanoon boromam sàkk ko ci sanc ko mu di mu di fi dox waaye nag ànd ak doxu jamono muy yàkkali ko ba faw nag léeg-léeg jamono dana toll foo xam ne danañ fàttaliwaat la ci borom bëggoon la ci borom xalaatoon la ci borom ñaanoon sunu boroom te may ko ko lépp nag muy sutura ak yërmande ak xéewal ci jullit yëpp rawatina taalibe yëpp rawatina ñu dëkkee Tuubaa ñëpp loolu nag kon ginnaaw jamono day dox ba àgg foo xam ne war nañoo yeesalaat ndigal yi yeesalaat kàddu ya kàddu yooyu rek ak yeesal gi rek moo tax Serigne Bassirou woowaate waat ci këram léegi ñi ñi nga xam ne ñoom la yàlla denk sa doxu réew mi ci saayir ñu yor ko ànd ak ñu yor dox batin gi bu yëpp àndee mu mën a dog mën a dox mën a yéwén mën a jub niñ ko bëggee moo tax sëñ Basiir wootewaat fi kon dañu koy ubbil rek di leen xamal ne nañ ko déglu te parce que yéen a jëfee loolu kat mooy sun njëriñ mooy sun ndimbal itam nag ndax ab taale bi moom déglu ndigal te fes ko yéen a jëfe rek mooy warteefam bu ko defee rek wàcc te sëñ bi mag ñi daan nañu wax ne kenn wàcc wàcc ko ci kaw buñ bu taalibe yi wàccee nag sëñ bi sëñ bi njëkk a wàcc ndax sëñ moo nu yarul lépp moo nu gàddu lépp moo nu defaral lépp kon nan jéemee jéem wàcc soo sëñ bi te mooy di di defe jëfe ndigal yi bàyyi tere yi kon na ko ñëpp bàyyi xel ñëpp ñëpp fasoo ko ñëpp fangandikoo ko ñëpp yar ci seen bopp ñëpp xam ne suñ njëriñ ci la nekk ñu fas ci yéene nekk loolu rek may wax kon nag sëñ naa ngi ko bàyyi sëñ Dame Soda mu wax leen li na ci kayit bi boo noppee sëñ Bass àggale kàddu yi loolu rek lañ ci doon ubbee nuyu itam ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi nuyu mbokk ñu ñuy teewlu yëpp ci turu jëwriñu Cheikh Fall ji di sëriñam di Fall moom sëriñ Modou Mbenda waaye di tàmbalee sunum nuyoo muy nuyoo bu bàyyi koo si moom jëm si jëwriñam ji di Cheikh Cheikh Modou Mountakha ñu ñaan yàlla sunu borom. téyel nu fanam bi ak wéram gi ba yéene ji mu am si liggéey sëñ tubaab bi mu def si lu kawe njortam te andi ko ak taalibe yëpp waaye di jottali ab nuyoo ak ziar mu jëm si Cheikh Amadou Bassir mi toog moom sëriñ Abdou Khadir di ko ñaanal yàlla sunu borom guddal aw fanam lool te wéral ay cëram yéene ji mu am si liggéey maam bii si yoon wi yàlla suñu borom kattanal ko moom def si ba def si lu kawe njortam waaye di jottali am nuyoom mu jëm si mboolem njabootu sëñ Tuubaa gi ak mbooleem njaboot gi nga xam ne ñoom la bokkal maam Cheikh Ibrahima Fall ndigal li nga xam ne nag moom la ñu am tey jii mooy di jottali euh, lii nga xam ne moom la ñu sëriñ bi jox mu jëm si wàllu luy sàmm ma ji ne ko ñëpp moo du Modou Mountakha jëloon baat boobu dénk ko njabootu Cheikh Ibra gi waaye ba mu ko dénkee njaboot Cheikh Ibra gi te sëriñ di Fall nekk sa bopp ba dafa daal di woo mboolem ñi mu bokkal Cheikh Ibra tàmbalee ko si kër maam Saliou Fall Daaru Xafoor ba ni mu agsee si ma kër sëriñ Gunda Fall moom maam Cheikh Ibrahima Fall ñoom ñëpp kenn ku si nekk tànn ay jëwriñ boole leen ak njaboot gi ñu ànd liggéey bi di ko taxawu si ni nga xam ne noonu la leen ko sëriñ bi digale woon nu dégg woon ko noona muy lépp loo xam ne waroon na ak lislaam lépp loo xam ne waroon na ak war ma ji ñu warloo tuubaa ak war ma ji ñu warloo ak njabootu sëñ Touba gi ndax bu nu fàtte ne li nu indi te bàyyi nu fi mooy jaamu yàlla te sunu jaamu yàlla ñun mooy topp sëñ Tuubaa rek yaakaar ko di ko liggéeyal loola waral sëriñ bi tànnaloon nu aw yoon ba ñu demee ba dox si ab diirit ñu dajewaat ak sëriñ bi noonu ko sëriñ Bas waxee noonu ko sëriñ Cheikhum sëñ Abdou Latif waxee sëriñ bi woolu woon njaboot gi démb ñu demoon teew fa moom mu jottali ay cant ak i ngërëm mu jëm si mbooleem njabootu Cheikh Fall gi si taxawaay bi nga xam ne am nañ ko si liggéey bi waaye ba mu mu dolli ñoo dénkaat bu baax a baax si li nga xam ne loolu la jublu si liggéey bi ak lam sa sàkku muy loo xam ne nu népp dañ koy barkeeloo muy kàddu yoo xam ne Serigne Abdou Lahad Mbacké moo ko moo ko fésaloon àndoon ko ak njabootu Sëñ Touba ga nga ba mu jam jam jamonoonteeloon gépp mu waxoon ni bataaxel boobu nañu ko Seex Maodo Bachir mii jox su ko defee nu yaatal ko ñëpp xam ko ñu dégg ko xam naa dañ koy yaatal rek la si des moom Cheikh Maodo Bachir incha allahu moom moo koy àggale sëriñ bi dafa wax ni bataaxal bii moom Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mi ngi ko def si fukki fan ak juróom-ñett si weeru septembre 1980 bataaxal bi nag sëriñ bi mi ngi ko jagleeloon ki nga xam ne moo fi nekkoon si jamono booba procureur de la république muy procureur bi nga xam ne moo jiite woon tribunal bi ñuy wax tribunal première instance Euh, première instance de jurbel mu wax ko ci ne ko ci bis bi nga xam ne mooy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru septembre man Cheikh Abdoul Ahad Mbacké xalifa yoonu murit maag samay maag njabootuk sëriñ Touba gi di samay rak ñoo bokk signé bataaxal bii di ci naqarlu bu wér si naqar lu bu wér loo xam ne lu bokk ci mm, waaw ci ci li nu bëgg mu faju si Touba si Touba waaw xam boobu daal leerut mu wax ne ñun ñun njabootuk sëriñ Touba man Cheikh Abdoul Ahad Mbacké maag njabootuk Serigne Touba gi ak samay rakk ñi nga xam ne ñoom la jamonoonteeloon ñoo àndandoo di naqarlu bu wér a wér ci Touba loo xam ne danoo bëgg mu faju te loola di loo xam ne dafa méngoowut ak sarti lislaam ak doxeenu lislaam ñun ñëpp nag nu ànd bisub tey bii signé bataaxal bii nga xam ne danoo bëggoon teg ko ci seeni loxo wax leen ci li nu ci naqari lépp te bëgg nu jàppaleenu si ba ni nu ko bëggee nu amee ko ni ba mu sàkkoo loolu ci procureur dafa daal di lim li nga xam ne bokk na si lim li nga xam ne moo ko naqari si dëkk bi moom njabootu Serigne Touba gi. la sa jiitu doonoon li ñuy wax jaay ak jëfandikoo lépp looy lépp loo xam ne xeetu sàngara la ak ñi nga xam ne dañuy màndi di dox si mbedd mi di wëndeelu euh, euh, te amuñu fu nu jëm beneen bi si dolliku di njaay ak jëfandikoo lépp loo xam ne xeetu dorog la muy yàmba ak lu ni mel di ko def si ak nëbbu ak lu feeñ beneen bi si dolli ko mooy lépp loo xam ne xeeti carte la muy carte boo xam ne dañ ci carte di si teg dara di si yaakaar dara wala carte goo xam ne dañ koy foye wala lu mel ne loterie beneen bi si dolli ko mooy lépp luy xeetu sàcc ak maanaam nëbbal sàcc ak càccam ak ña nga xam ne ñëpp ànd nañ sa càcc ga bi si dolli ko mooy lépp luy xeeti am tëgg lu jëm si ak musique li ñuy wax musique akum fecc ak lépp lu jëm si maanaam ay xew yoo xam ne dañu fay yëngutu yëngutu boo xam ne yëngutuy caaxaan la ah li si dolli mooy si tënk ba sa muj ga mu wax ni daal lépp loo xam ne ay ay jëf la yoo xam ne méngoowut ak li nga xam ne mooy principe bu l'islam méngoowut ak li nga xam ne l'islam rafetlu na ko loole lépp tàbbi na si la nga xamante ni bii naqari na Serigne Abdoul Ahad Mbacké ak njabootuk sëñ Touba gi fi newoon di ay rakkam bëggoon nu jàppale ko si ngir loola saafarawu mu wax ni loolu ñi ngi ko def Touba fukki fan ak juróom-ñett si weeru septembre 1980 Serigne Abdoul Ahad Mbacké mi nga xam ne moo fi nekkoon jëwriñu Serigne Touba ànd ko ak rakkam yi yi fi nekkoon ñoom ñoom ñëpp ñu maase signé bataaxal boobu jébbal ko procureur loolu mooy baat yi nga xam ne. tere yi nga xam ne tere yooyee moom moom la Cheikh Abdoul Ahad Mbacké tere woon waaye Serigne Mountakha Mbacké moomit it bi yàlla dogalee liggéey bii dox jaar fi mu war a jaar yëpp ba agsi fi moom moom bi mu agsee dafa am loo xam ne da ko see yokku nun ñëpp ñu dégg ko bokkoon na si li nga xam ne mooy wàllu politique politique moom dégg ngeen ni ko sëriñ bi waxee wax ni li ko gën a naqari si politique ci dëkk bi bokk na si wàllu politique Euh, tegoon na si ne lépp loo xam ne wute na ak njàngalem Serigne Touba loolaat bokk na si la ko naqari woon si dëkk bii loolu moom la si du Modou Mountakha yokku ak football football it Serigne bi wax na ni loola bëgg ko si dëkk bi naqari na ko fi bu sañoon mu dañ loolu nag gannaaw bataaxal bi Cheikh Abdou Lahad Mbacké defoon Serigne Mountakha Mbacké yàlla yàlla yàggal ak dundam moom it bi mu agsee te jamonoonte ak xew-xew yii. mu seetlu ne xew-xew yi luy xajamal ak taalibe la moom it mu yokk sa loola daal di wax ni eh, bëgg na ñu jàppale ko si loolee ba loola génn si dëkk bi ba seet fi wécc loolu mooy ndënkaan yi nga xam ne moom la sëriñ Modou Mountakha dénkoon euh, Cheikh Modou Bachir mu jottali ko sëriñ Amdi Fall ak njabootug maam Cheikh Fall gi ngir nu sàmmal ko war ma jooju nga xam ne moom lay sàkku nu sàmmal ko ko si dëkk bii di tuubaa ak si njabootam gi di njabootug sëriñ Touba gi. mu ngi sant bu baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi barakaatu. xanaa di yëkkati ay kàddu yu gàtt rek ginnaaw bi ma nuyoo sëriñ bi di yëkkati nuyoo bu sell ak ziar te ko ci loxo mu tegal ñu ko ci loxo suñu way jox sëriñ Mountakha Mbàkke yàlla na ko yàlla may gudd fan yu ànd ak wér maa ngi nuyu ñi fi teew jëpp suñu maanaam mbokki Baay Faal yi. maa ngi leen di nuyu bu baax di lu seen taxawaay di am mbégte rek fekkee jataay bi di si sant sëñ sëriñ Basiru Abdou Khadre ndax wax dëgg fa yàlla lépp loo xamante ni bii administration si wàllu boppam war na ko fekkee wala mu war koo yëg moom bu jaaree ci moom danañ ko fekkee danañ ko yëg loolu nag muy taxawaay boo xamante ni xëj na am naa occasion tey pour sant ko ci ndax jot loxoom joti nag fu fu ñu kawe waaye mu musuñu bët saa yu ñu waree am taxawaay fii rek daf ñu yëgal euh, wala mu woo ñu ñu fekk kon nag sëriñ bi ñu ngi lay sant bu baax ci loolu lii nga xamante ne bii moo ñu fi indi tamit dégg nañ sëñ daam Sode li mu wax euh, ñëwoon nañ ci sëriñ bi tamit sa si jamono yële ñu weesu mu yëkkati kayit bi jox ñu bi ñu ko joxee tamit bi ñu ko joxee tamit yeggee nañ ko suñuy kilifa sàmmay wax may dëkk bi nag ñun xam nañ ne lu yitteel sëriñ bi la moom sëriñ Mountakha te biir nañu ne bu doon lu mën a sàmmal boppam wattul boppam moo koy wattul boppam daa fekk ne dëkk bi nag yaatu na yaatuwaay boo xamante ne bi moom mënu koo wattu fu ne moo tax mu wutam mbooloo muy wattu loolu loolu nag liñ ci jàpp rek mooy képp koo xamante ni yàlla def na tawféex nga bokk ci tànneef boobu nga wéet wala nga wéttaliku na nga koy jëfee wax nga xalaat sëñ bi bu doon moo koy jëfee noonu ni mu koy jëfee nga jëfee ko noonu loolu mooy tax ñu wàccoo ak bëgg-bëggam moom jamono bi nag dafa nekk jamono bu xaw a waar waar euh, nit doomu aadama yi toll noonu la télé yi toll noonu la rajo yi toll ndax ku si am sa téléphone rek am na tele am na rajo euh, te nag ñi nga xamante ni bii am nañ tawféex pour jëfee ko du ñëpp ñoo leen ko yéene am na si ñoo xamante ni bii bu ñu sañoon saa yu ñu xëyee gis safaan ba mën ko publier fu nekk mu dem si àdduna kon nag ñun nga xamante ne bii eh, ñoo am tawféex boobu lépp luñ ciy def rek nañu fexe ba moytandiku suñuy noon am fu ñu yegg ba defee ko ni nga xamante ne bii moom la ko sëriñ bi bëggee lii nga xamante ne bii nag wax nañ ko fi ñun dinañ ko yeggee suñuy kilifa yi nga xamante ne bii ñoom ak sëriñ bi réeroowuñu ndax fii ñun tam ñi am tawféex nekk ñaari bëgg-bëgg dong moom lañuy sàmm fii bëgg-bëgg bi ci jiitu mooy bëgg-bëgg bi nga xamante ni bii ñi ñu fi indi mooy état bi waaye nag ci bëgg-bëgg boobu tam bëgg-bëgg sëriñ bi tam ci la bokk te ñaar yëpp amul lenn lu ciy lor askan bi donc ñun jàpp nañ ne donc li sëriñ bi bëgg li état bi bëgg moom la sëriñ bi bëgg te gis nañ ne aussi li sëriñ bi bëgg moom la état bi bëgg donc lii nga xamante ni bii dégg nañ ko fi bu soobee yàlla nañ ko jotali suñuy kilifa di ñaan yàlla rek ak ñi nga xamante ne bii ñoo dëkk Touba ñu xam ne sëriñ bi du yëkkati dara luy lore état bi du yëkkati dara luy lore la nga xamante ne bii wax nañ see waxtaan ak ñoom ñu waxtaan si ak ñoom ba ni ko sëriñ bi bëggee xëj na mu amee ni nga xamante ne bii moom la ko bëggee yaakaar naa ne loolu bu ñu ko amee rek jàmm dina am fii te tamit ñëpp ay taalibe donc fii dëkk bi ñëpp ay taalibe lañ donc fexe daal ba euh, li sëriñ bi bëgg. Euh, mu am njeexital ci askan wi nga xamante ni moom la ko bëggal te mu bañ a jur benn féewaloo loolu daal yaakaar naa ne mooy li nga xamante ni bii moo ci am solo ñëw nañ fekk fi sëriñ bi waaye ànd ak procureur ak capitaine bi ak euh, gendarmerie ak euh, commissaire spécial bu soobee yàlla këyit bi ni ni ko fàttaliwaatee nii dinañ ko biralaat bi nga xamante ni bii mooy suñuy kilifa. bu soobee yàlla taxawaay bu ñu ci war a am bu soobee yàlla ñoom bu ñu ko waxee rek den ko am bu soobee yàlla loolu laa amoon ci kàddu gàtt rek li mooy wax di sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah taala tey jii ci kaw suuf di ko ñaanal mu yàgg fi lool di ko ñaanal it mu yàgg fi lool te ànd ak wér te ànd ak wér am ci liggéey Serigne Touba ba mbooleem naal yi am ci liggéeyal Serigne Touba suñu borom may ko kattan ak wér suñu borom may ko kattan ak wér ba lépp mu mottali ko ba lépp mu mottali ko ndax moom da day jëmm joo xam ne ndax moom Serigne Touba Cheikh Mamadou Mountakha day jëmm joo xam ne. ku yàlla def tawfeex muy sa kilifa. ku yàlla def feex muy sa kilifa. war ngaa sant yàlla bu baax. war ngaa sant yàlla bu baax. war ngaa ndamu war ngaa am ndamu it bu baax. war bu baax. war ngaa puukare wu bu baax. waxuma nag bàkku. waxuma nag bàkku. waaye war ngaa bu baax. waaye war ngaa puukare wu bu baax. ndax moom de. ndax moom de. itteem jëpp. itteem jëpp. mooy ni ñi am jàmm. mooy nit ñi am jàmm. li muy faral di yëkkati ci kàddoom. li muy faral di yëkkati ci ay kàddoom. di wax ne lii ñëpp ñëpp laa ko yéene. di wax ne lii kat ñëpp laa ko yéene. loolu la yàlla def ci moom. loolu rek la yàlla def ci moom. bu sañoon ñëpp jub. bu sañoon ñëpp jub. bu sañoon ñëpp defaru. bu sañoon nit ñëpp defaru. bu sañoon ñëpp baax. bu sañoon nit ñëpp baax. kon nag li ñu war. kon li ñu war. topp ci ginnaawam. topp rek ci ginnaawam. di diglu ay ndigalam. di déglu ay ndigalam. ndax. ni ko suñu borom waxe waxoon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam rek ni ko suñu borom waxe woon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ne ko bu ñu toppoon li ngay wax ne ko bu ñu toppoon li ngay wax topp li ñu leen di digal topp li ñu leen di digal ak yëkkati ko leen di jural ak yëkkati ko kat la leen di jural ndam rek la leen di jural ndam rek la leen di jural te bu boobaa nag te bu boobaa nag danañ mën a yëkkati suñu bopp danañ mën a yëkkati suñu bopp. xam ne wa antumul wa antumul laxlawna in kuntum muminin wax ne wa antumul laxlawna in kuntum muminin kon ñu ngi koy ñaanal bu kon ñu ngi koy ñaanal bu baax. kaddu yi nag du gudd. nee na kaddu yi nag du gudd. ndax dëmbu ndax démb. ci àllarba ji. ci àllarba ji. bi sëriñ bi ubbee rek. bi sëriñ bi ubbee rek. daa wax li yitteem jëpp. daa wax li yitteem jëpp. li ci jiitu. li ci jiitu. balaa tàmbalee dajeeg nit ñi. ba balaa tàmbalee daje ak nit ñi. ndax moom du noppalu. ndax moom kat du noppalu. bu nit ñi bëggee mu noppalu sax. su nit ñi bëggee sax mu noppalu. day wax ne sëñu ma ko. day wax ne sëñu ko. ndax liggéey bi. ndax liggéey bi. sëriñ Cheikh mi xam na ci dara. sëriñ Cheikh Abdou Latif mi xam na ci dara. ñun ñi topp ci ginnaawam. ñun ñii topp ci ginnaawam. dañuy dem ba duñ mën a seqeeti jéego. dañuy dem ba ñun duutuñu mën a seqi ab jéego. waaye foo ko fekk ci biir néegam. waaye foo ko fekk ci biir néegam. mu yendu ci daayira yi. mu yendu ci daayira yi. ba nga jàpp ne boo ko fekkee da nga koy fekk mu tëdd. ba nga jàpp ne bu ma demee dama koy fekk mu tëdd. da nga koy fekk mu yor jukkib xasida bi. da nga koy fekk mu yor jukkib xasida am. boo ko soxlaa. boo ko soxlaa. day teg téere bi. day teg téere bi. wax ak yow. wax ak yow. ñaanal la. ñaanal la. àggalewaat jukki bi. yoraat jukkeem àggale ko. boo ko fekkoon guddi noonu lay def. boo ko fekkoon guddi bunt it lay def. kon kooku bëgg na nit ñi am jàmm. kon kooku day bëgg na nit ñi am jàmm. ndax bu doon rek. ndax bu doon jëmmam rek. lu bari teggiku na ko. lu baree bari teggiku na waaye bëgg xet li bindee fi rek. waaye bëgg xet li bindee fi rek. kon ñoo koy ñaanal mu yàgg fi tànd. kon ñoo ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool tànd ak wér. démb nag bi mu agsee. démb nag bi mu agsee. da woo fa saasa. da koo daal di woo fa saasa. wax ne naa wax ak Serigne Amdi. wax ko ne ko na nga dem wax ak am di moom Serigne Modou Mbenda. moom Serigne Modou Mbenda. mi fi jëmmi Cheikh Ibra tey ci kaw suuf. mi fi jëmmi Cheikh Ibra tey ci kaw suuf. noo ngi koy ñaanal mu yàgg fi te ànd ak wér. noo ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér. na ko na yabal njabootam gi. na ko na yabal njabootam gi. mu wax ak ñoom. mu wax ak ñoom. waxtaan wi it. waxtaan wi it. la ci jiitu. la ca jiitu. mooy cant. mooy cant. ak gërëm leen. ak gërëm leen. ak ñaax leen. ak ñaax leen. ak ànd ak ñoom liggéey bi. ak ànd ak ñoom nag liggéey bi. ndax liggéey bi da koo itteel. ndax liggéey bii moom da koo itteel. bu ngeen seetloo. bu ngeen seetloo. waxtaan yu mu jëpp. waxtaanam yu mujj yëpp. daaw ba ren. daaw ba saa su waxee war may dëkk bi saa yu waxee rek ci lu sàmm war may dëkk bi lay wax. kon itteel na ko. kon itteel na ko. te bëgg a dimbale nit ñi rek. te bëgg a dimbale nit ñi képp tax. mu wax leen nam ko bëggee. sëriñ bi nag wax leen nam ko bëggee. ndax lam ci jublu it. ndax lam ci jublu it. mooy bañ kenn juum. mooy bañ kenn juum. ndax ñi dëkk bi ñi dëkk ci dëkk bi ñëpp. ndax ñi dëkk ci dëkk bi ñëpp. ay njabootam lañ. njabootu sëñ Muntaxa lañ. ñëpp taalibe sëñ Tuubaa lañ. ñëpp taalibe sëñ Tuubaa lañ. ñenn ñi fi koomum àdduna andi itam. ñenn ñi fi koomum àdduna andi itam. yaakaar yërmande sëñ bi tax. yaakaar yërmande sëñ bi rek a tax. kon yéen kon dëkkub yërmande la. kon dëkk bi dëkkub yërmande la. kon bëggut kenn loru. kon bëggut kenn loru. te am na ñaari baat yu mu jëfandikoo démb. te am na ñaari baatkat yoo xam ne jëfandikoo na ko démb. te waxoon na ko démb waxoon na ko ci kor gi. te waxoon na ko ci kor gi. na sëñ Tuubaa ba mu jógee. na sëñ Tuubaa ba mu jógee. la ko tax a jóg moo ko tax a jóg. la ko tax a jóg rek moo ko tax a jóg. dem na ba am ca ndam. dem na nag ba am ca ndam. toq deret tuuru. te genn toq deret tuuruwut. xaddamut xaddamut. démb fa fat na ko. baat boobu démb fàttaliwaat na ko. kon lam ci jublu woon. kon lam ci jublu woon. mooy kayit wa nga xam ne. mooy kayit wa nga xam ne. a Cheikh Abdoul Ahad Mbacké. ak Cheikh Abdoul Ahad Mbacké. bindoon na ko. bindoon na ko. àndoon ko njabootu sëñ Tuubaa gi mu fi fekkandoon. àndoon ko ak njabootu sëñ Tuubaa gi mu fi fekkandoon. yaakaar gis nañ kayit yi. yaakaar naa kayit yi ñu bëree bëri gis nañ ko. moo leeral li mu bëgg ci dëkk bi. Cheikh Abdoul Ahad leeral li mu bëgg ci dëkk bi. ak lim fi tere. ak lim fi tere. te loolu dinaa leen ci nett lu tuuti. te loolu kat danaa leen ci nett lu tuuti. xëy na sax du waxi rajo. xam na xëy na sax du waxi rajo. waaye Cheikh Abdoul Ahad ba mu koy def. waaye Cheikh Abdoul Ahad ba mu koy def. nee na Serigne Touba moo ko wax directement. nee na Serigne Touba ko ko wax directement. te boobu ma nga Touba Belal. te boobu ma nga Touba Belal. ba ba àgg ci misaal ñam ko doon wax. ba àgg ci misaalal ñam ko doon wax. te ña ko doon ñam ko waxoon. te ñam ko waxoon. am na ci ñoo xam ne ñu ngi dund. am na ci ñoo xam ne ñu ngi dund. sëriñ Moustapha moom sëriñ Abdou Khadir mi nettali na ko. sëriñ Moustapha moom sëriñ Abdou Khadir mii sëriñ Abdou Lahat nettali na ko. xam ngeen ne sëriñ Moustapha lu mu wax. te sëñ Moustapha de moom xam ngeen ne lu mu wax. lu wér la lu wér la. sëñ Abdou Lahad nee na ko. sëñ Abdou Lahad nee na ko. sëñ Touba yónnee ci man ndaw. sëñ Touba moo yónnee ci man ndaw. ab leetar ab leetar mbind mu tooy xëpp mbind mu tooy xëpp te leetar ba it ña ko doon andi te leetar ba it ña ko doon andi sëñ Masamba ca la bokk sëñ Masamba ca la bokk sëñ Modou Mamoun Ñang ñoom mook sëñ Moustapha la ko nettali sëriñ Modou Mamoun Ñang ak sëñ Moustapha am sëñ Abdou Khadir la ko nettali loo ak ñeneen ak ñeneen te nettali na ko ñeneen te nettali na ko ñeneen loolu kon loolu xam ngeen bu ngeen gisee sëñ Muntaxa dogoo ci nii rek bu ngeen gisee sëñ Muntaxa dogoo ci nii rek ndigalul sëñ Tuubaa la ndigalul sëñ Tuubaa la man awma ci sikki sàkk man awma ci sikki sàkk ba mu wax ba mu waxee Baye Fall ba noppi ba mu waxee Baye Fall ba noppi andil leen ndigal li andil leen ndigal li bind ko ciw kayit bind ko ciw kayit ne leen fii la tàmbalee ne leen fii la tàmbalee fii la yem fii la yem loola itam lam ci jublu loola itam lam ci jublu xam na ne Baye Fall moom xam na ne Baye Fall moom ñoom seen seen seen seen dund gépp ñoom seen dund gépp mooy ndigal mooy ndigal te bëggul dara dara ëpp te bëggut nag dara ëpp. bëggut dara yées. bëggut it dara yées. ndax inna diinana mabniyun ala ala naqli. ndax ala ala munasabati naqli diina ji. nee na diine ji. Seydina Aboubacar dafa wax ne. Seydina Aboubacar dafa wax ne. niñ ko toxalee rek. niñ toxalee diina ji rek. noonu lay wéree. noonu lay wéree. waaye kenn du jëfandikoo sama. waaye kenn du jëfandikoo nag sam xel ci diine. fii la moo tax sëriñ bi ne fii la tàmbalee. fii la yem fii la yem. mbégteem àgg na ci. mbégteem àgg na ci. ba waxtaaneek waxtaanee ak ñoom ba noppi. ba mu waxtaanee ak ñoom ba noppi. yéem seen pëstéef. yéem seen pëstéef. yéem seen seenu dëggu. yéem seenu dëggu. sant leen ci li weesu lépp. sant leen ci li weesu lépp. dafay yëkkati ñaari gëléem. dafay yëkkati ñaari gëléem. ne leen damaa bëgg ngeen barkeeloo ko def ko añ. na leen dama bëgg ngeen barkeeloo ko nag def ko añ. kon loolu ak yëkkatiku la. kon loolu ak yëkkati ku la. kon loolu rek mooy li ci ëpp solo. kon loolu mooy li ci solo. kon daanaka kaddu yi sëriñ Cheikh wax na li ci matoon wax. kon daanaka kaddu yi sëriñ Cheikh wax na ci li ci matoon wax. ndax moom. ndax moom. xam ngeen ne mooy ndawul sëñ bi fii moom. xam ngeen ne mooy ndawul sëñ bi fii moom. muy jàmbaar lool itam. muy jàmbaar lool itam. di borom Pastef. di borom Pastef. jaay njureel gépp. jaay njureel gépp. ak bokk gépp. ak bokk gépp. jënd ko taalibe. jënd ko taalibe. kon ñu ngi koy sant mooy. kon ñu ngi lay sant yow bu baax. sëñ daam mi itam. sëñ daam mi itam. moo fi teewal sëñ Amdi. moo fi teewal sëñ Amdi. ak bokkam yëpp. ak bokkam yëpp. teewal fi bi. teewal fi sëñ bi. waaye moom itam muy jàmbaar. waaye moom itam muy jàmbaar. démb la ko sëñ bi mujj seere. ko sëñ bi mujj seere. na man de miinu ma ko woon. na man de miinu ma ko woon. waaye dogu gi ma séen ci moom. waaye dogu gi ma séen ci moom. ak pësteef gi ma séen ci moom. ak pësteef bi ma séen ci moom. ma séen ci moom. ak yitte ju kawe ji ràññee gi ma séen ci moom. ak ràññee gi ma séen ci moom. xam naa ndimbalul ma am la. xam naa ne ndimbalul ma am la. kon ñi ngi sant ñëpp. kon ñi ngi sant ñëpp. kon loolu daal. kon loolu daal. mooy ndigalu sëriñ bi. mooy ndigalu sëriñ bi. la ca des nag. la ca des nag mooy di nuyu préfet. mooy di nuyu préfet. mi nga xam ne moo fi moo fi teewal nguur gi. mi nga xam ne moo fi teewal nguur gi. ak ñi ko seqal ñëpp. ak ñi ko seqal ñëpp. di procureur bu Mbacké. di procureur bu Mbacké. ak euh, commissaire bu Touba. ak commissaire bu Touba. ak commandant bu gendarmerie. ak commandant bu gendarmerie. ndax ñoom ñoo seq liggéey bi. ndax ñoom ñoo seq liggéey bi. te liggéey bi nag day liggéey bu yaatu. te liggéey bi nag day liggéey bu yaatu. Euh, danaa ci dellusiwaat. danaa ci dellusiwaat. waaye li ci am solo. waaye li ci am solo. kon préfet ñu ngi lay yóbbanti ci say kilifa. kon préfet ñu ngi lay yóbbanti ci say kilifa. ndax ni nga ko waxee rek. ndax ni nga ko waxee rek. duñ la fi tëb di jàll. du la fi tëb di jàll. ndax bu ngeen xoolee lettre bi. ndax bu ngeen xoolee leetar bi. ba ko sëñ Abdou Lahad di bind. ba ko sëñ Abdou Lahad di bind. mënoon na ko adressé Abdou Diouf. mënoon na koo adressé Abdou waaye defu ko. waaye defu ko. ki ne fii la ko ne fii rek la ko jox. kon yow sa loxo lañ ko tegaat. kon yow it nag ci sa loxo lañ ko tegaat. ndax daaw sëriñ bi da leen a woo. ndax daaw sëriñ bi da leen a woo. te laata mu leen di woo. te laata mu leen di woo. damaa woo ba ma ñëw. damaa woo ba ma ñëw. mu ne wool ma ki jiite ne ko wool ma ki jiite réew mi. président Macky Sall. président sëñ bi wax ko ko ci téléphone. sëñ bi wax ko ko ci téléphone. wax ko ko ni mu ko bëggee. wax ko ko ko bëggee. sëñ bi leeralaat na ko. sëñ bi leeralaat na loola. kon loola jëru kon yéen la ci seen wàll. kon yéen ngeen ci taxaw baax. na ngeen ci taxaw baax. ndax euh, li tax. ndax li tax. bu ngeen ci taxawul rek. bu ngeen ci taxawul rek. jafe-jafe lay indi. jafe-jafe lay indi. ndax Baye Fall yi moom. ndax Baye Fall yi moom. li leen sëñ bi digal. li leen sëñ bi digal. faaw ñu def ko. faaw ñu def ko. kon yéen tam bu ngeen leen ko sàmmalewut. kon yéen itam bu ngeen leen ko sàmmalewut. bu si jafe-jafe amee day naqaree lijjanti. bu ci jafe-jafe amee day naqaree lijjanti. ndax ñoom seen bakkan lañ teg ci ndigalu sëñ bi. ndax ñoom kat seen bakkan bii lañ teg ci ndigalu sëñ bi. xew-xew yii fi amoon. xew-xew yii fi amoon. bañ ñëwee ci man. bañ ñëwee ci man ña ca gaañu ci ñoom bari na. ña ca gaañu ci ñoom bari na. waaye dañ ne bu ci nit faatu woon it. waaye dañ ne ko bu ci nit faatu woon it. duñ la ko wax duñ la ko tàggee. ndax xam ne def na lam war a def. ndax dañuy xam ne def na lam war a def. kon yéen itam. kon yéen itam. am ngeen ci responsabilité. am ngeen ci responsabilité. te ñoom it am nañ ci gàllankoor. te ñoom ñii it nag am nañ ci ay gàllankoor. ndax ñoom duñ jàmbat. ndax ñoom duñ jàmbat. Baye Fall duñ jàmbat. Baye Fall duñ jàmbat. ñoom seen bakkan rek la ñuy joxe. ñoom seen bakkan rek la ñuy joxe. waaye bari na lool. waaye bari na lool nag. ñun jàpp ci biir dëkk bi. ñun jàpp ci biir dëkk bi. ndax suñ ndax nit ñi dañuy jàmbat. ndax nit ñi dañuy jàmbat. ne dañuy dugg ci biir kër yi. ne dañuy dugg ci biir kër yi. te loolu bokkul ci liggéey bi. te loolu bokkul ci biir waaye loolu nag bokk na ci leen di jafe-jafe bi. waaye bokk na ci nag leen di jafe-jafe bi. ñoom da ñoom Baye wax ne. ñoom Baye Fall yi dañoo wax ne. kër gu ngeen gis ñu dugg ci rek. kër gu ngeen gis dugg ci rek. dañ ko topp bañ jafe jaay yàmba wala ñu di. dañ koy topp bañ xam ne dañ fiy jaay yàmba wala lu ñu demee. moo tax ñu dugg fa moo tax ñu dugg fa. nag kon yéen leen ci war a taxaw. kon nag yéen a leen ci war a taxaw. te bari na lool. te bari na lool. burut benn du ñaar. burut benn du ñaar. buñ jàmbatee ne. buñ jàmbatee ne. jàpp nañ ci nit yàmba wala dorog. jàpp nañ ci nit yàmba wala dorog. buñ ko yóbboo police. buñ bu subaa bu subaa ñu gisaat ko muy dox ci mbedd bi. bu subaa ñu gisaat ko muy dox ci mbedd bi. loolu nag am lëj lay doon. loolu leneen xewee bu ëllëgee bu ci leneen xewee bu ëllëgee bu ngeen bu ngeen du sotti bu ngeen dëniirloo it du sotti ndax yéen lañ dénk nit ndax yéen lañ dénk nit kon loolu seen responsabilité kon loolu seen responsabilité kon yéen itam da ngeen ci yëgoog ñoom kon leen ci yëgoog ñoom kuñ ci fuñ ci demati ba mu wóor leen lii nga fa. ci demati ba mu wóor leen ne lii nga fa. te loolu lu waa Sénégal tere na ko. te loolu lu waa Sénégal tere na ko. li lu waa Sénégal terewul nag. li lu waa Sénégal terewul nag. te sëñ bi moom ab dëkkam di këram. te sëñ bi moom ab dëkkam muy këram. loolu mbirum boppam. loolu mbirum boppam. waaye la ci des yéen da ngeen caa war waaye la ci des nag yéen da ngeen caa war a taxaw. ndax bu ngeen ci taxawul rek. ndax bu ngeen ci taxawul rek. mooy waral ñoom ñu fajal seen bopp. mooy waral ñoom ñu fajal seen bopp. te buñ fajalee seen bopp. du lijjanti moromam siwalam du lijjanti moromam siwalam te fekk na taxawaay bu war a am bu amee fekk na taxawaay nag ba war a am bu amee bu fekkee bu ñu leen signalé yéen bu fekkee ne bu ñu leen signalé yéen ngeen def ci ak dogu ngeen def ci ak dogu kon du agsi foofu kon du agsi foofu kon loolu laa leen ci soññi kon loolu laa leen ciy soññi procureur yow itam procureur yow itam nga jottali ko say kilifa nga jottali ko say kilifa ndax xam ngeen ne ndax xam ngeen ne ñëpp xam nañu Sénégal luwaa yi ni mu tëddee waaye jàpp naa ne la ma yoon Cheikh Abdoul Ahad waaye jàpp naa ne la ma yoon Cheikh Abdoul Ahad président ba mu fi nekkaloon. président ba mu fi nekkaloon. mayoon ko lii ñu ko tere Touba. mayoon ko lii ñu ko tere Touba. loolu lu waay Sénégal terewu ko. loolu lu waay Sénégal terewu ko. waaye loolu xam nañ ne. waaye loolu xam nañ ne. dëkk bi yeyoo na ko. dëkk bi yeyoo na ko. kon yéen itam ngeen def ci ngeen def ci yitte. kon yéen itam ngeen def ci yitte. ndax bu ngeen ci deful yitte rek. ndax bu ngeen ci deful yitte rek. anarchie mooy am. anarchie mooy am. ndax ñoom li leen sëñ bi digal. ndax ñoom ñii kat li leen sëñ bi digal. seen bakkan lañ ci rek. seen bakkan lañ ci rek. buñ ci doon faatu ba jeexit. buñ ci doon faatu ba jeexit. xam naa ne jaral na leen ko. xam naa ne jaral na leen ko. kon nag kon nag loolu mooy li ci jëm ci loolu loolu mu ciy jëm ci lool li ci des mooy bokki taalibe yi dëkk ci dëkk bi li ci des nag mooy bokki taalibe yi dëkk dëkk bi nañ xam ne nañ xam ne lii sëriñ bi sant baay Fall yi sëriñ bi sant baay Fall yi mboolem seexi sëriñ Touba yi mboolem seexi sëriñ Touba yi ñëpp la ko sëñ bi sant ñëpp la ko sëñ bi sant ndax ñoom seen maam yooyu ñoo gàddaayoon ndax ñoom kat seen maam yaa gàddaayoon te dara taxu leen a jóg lu may ngërëmul sëñ Touba te taxu leen a jóg lu dul ngërëmul sëñ Touba ànd ak sëriñ bi ànd ak sëriñ bi xamuñu woon fu ñu jëm. xamuñu woon fu ñu jëm. ba bi yóbbu leen fii mu leen yóbbu. ba sëriñ bi yóbbu leen fii mu leen yóbbu. kon ñoom suñ bokki seex sépp. kon suñ bokki seex sépp. nañ xam ne ndigal li nañ xam ne ndigal li ñoom ñoom ñoo ko bokk ñoo ñoom ñoo ko bokk rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam danaa def rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam danaa def bu yónni woon ñetti nit wala ñeent sax bu yónni woon ñetti nit wala ñeent faaw mu wax ne kenn jiitu faaw mu wax ne kenn jiitu dafa mel nag julli dafa mel nag julli ñëpp lañ ko sant ñëpp lañ ko sant waaye faaw kenn jiitu waaye nag faaw kenn jiitu kon nag loolu kon nag loolu kër yëpp nañ ko xamee noonu kër yëpp nañ ko xamee noonu ñoom itam demoon nañ ci ñi ci ëpp ñoom ñii nag ñu ci ëpp demoon nañ ci ñoom waaye démb waxaat nañ sëñ bi ne ko waaye démb waxaat nañ sëñ bi ne ko bind nañ ay leetar bind nañ ay leetar ngir wër kër seex sëpp. ngir wër kër seex sëpp. ndax bëgguñ di ak defar guy jur yàq. ngir bëgguñu ak defar guy jur yàq. bu ci bu bu ko defee. bu ko defee. kenn ku ne penc ma nga ne. kenn ku ne penc ma nga ne. yaa fa yaa leen fa nekkal. yaa leen fa nekkal. loo fa gis. loo fa gis. lu war sa dañ nga dindi ko. lu war a dañ nga dindi ko. kon loo ñoom itam ñu ngi leen koy digal. kon ñoom itam ñu ngi leen koy digal. di ko digal itam Abdoul Ahad Ka. di ko digal it Abdoul Ahad Ka. yàlla dafay nekkul. yàlla dogal dafay newul. ndawam a ngi fi. ndawam a ngi fi. ndax moom itam moo jiite commune bi. ndax moom itam moo jiite commune bi. moo ànd koog yéen. moo ànd koog yéen. ci lépp lu ciy taxawaayam. ci lépp lu ciy taxawaayam. ak lu mu ci war a def. ak lu mu ci war a def. Amsatou Diakhaté ngi nii. Serigne Amsatou Diakhaté ngi nii. moo jiite chef de village yi ci Touba. moo jiite chef de village yi ci Touba. moom itam faaw mu jàpp ci. moom itam faaw mu jàpp ndax xam ngeen ne adduna fi mu toll. ndax xam ngeen ne fi adduna toll. police police mag yi sax. police yi mag yi sax. police yi mënatut a attan sécurité dëkk ba. police yi seen jëmmi bopp attanutuñ sécurité dëkk yi. fexe ba nit ñi ànd ñoom dañuy fexe ba nit ñi leen kon rawatina ne taalibe Sëñ xam ne taalibe Sëñ Tuubaa lañ. des nag. moom doxinu àdduna la moom doxinu àdduna la fu lu baax nekk rek fu lu baax nekk rek safaan ba dugg si safaan ba dugg si ndax sëñ Abdou Lahad ba muy tere lii ndax sëñ laat Lahad ba muy tere yi ñi judd ginnaaw bi ñi judd ginnaaw bi xamuñu na dëkk bi meloon xamuñu ne dëkk bi meloon boobu ak dogoom rek waaye ak dogoom rek moo tax mu agsi moo tax mu agsi fii dogu googee nag dogu googee nag ca la Cheikh Mouhamadou Mountakha di roy ca la sëñ Mountakha di roy fas yéene fas yéene lim bëgg lépp mu am ko. lim bëgg lépp mu am ko. te di su fitnaal nit. te di suñ ci fitnaal nit. di su toroxal nit. di su ci toroxal nit. di su ci dóor nit. di su ci dóor nit. Serigne Touba nag. Serigne Touba waxoon na ne Serigne Abdoulaye dafa waxoon ne. Serigne Abdoulaye daa waxoon ne. Serigne Touba. Serigne Touba. melaw géej la yor. melaw géej la yor. géej nag attan na lépp. géej nag attan na lépp. lu dugg ci biiram mu attan mu attan la. lu dugg ci biiram rek mu attan. waaye lu ci bokk na dana la génne. waaye lu ci bokk na géej dana ko génne. ba ci taw bi sax. ba ci taw bi sax. lu taw bi bari bari. lu taw bi bari bari. bu noppee dana ko génne. bu noppee nag moom dana génn ndoxam. loolu mooy mbirum sëñ Touba loolu mooy mbirum sëñ Touba. te waxoon na sëñ Amsatu Jaxate ne ko. te waxoon na sëñ Amsatu Jaxate ne ko. mujjug jamono de. mujjug jamono de. danaa yelbu. danaa yelbu. bu ma yelboo nag ku ci bokkut da nga génn. bu ma yelboo nag ku ci bokkut da nga génn. kon nag loolu. kon nag loolu. mooy ndigal li mooy ndigal li li ci des nag li ci des nag sëriñ bi joxewoon na ndigal na naa ko leeral sëriñ bi joxe woon na na naa ko leeral jox ndigal Baye Fall yi jox ndigal Baye Fall yi ba waxoon ci élection yi ba waxoon ci élection yi wax ne nit ñi dañ koo déggee ne nit ñi dañ koo déggee ne sëriñ bi bëggatul ko watte ci dëkk bi sëriñ bi bëggatul ko watte ci dëkk bi waaye daa bëggoon ñu génne ko dëkk bi waaye daa bëggoon ñu génne ko dëkk bi ba ma ñibbisee itam ba ma ñibbisee itam sëñ bi jox ma ci ndigal sëñ bi jox ma ci ndigal ma àndoon ko jarbaatam di secrétaire am xaadim suñu xaadim Diop. ma àndoon ko ak jarbaatam di secrétaire am di suñu xaadim Diop. ak ñam ko seqaloon. ak ñam ko seqaloon. ñoom ñoo ca liggéey. ñoom ñoo ca liggéey. ba bindoon ko ci kayit. ba bindoon ko ci aw kayit. niñ ko xalaatee. niñ ko xalaatee. jébbal ko señ bi. jébbal ko sëñ bi sëñ bi wax leen ñu indil ma ko. sëñ bi wax leen na ko nañ ko yët sëñ Basirou. ba ma ko wuyutee. ba ma ko yëtee. mu ne ma yët ko njiitu réew mi. mu ne ma yët ko njiitul réew mi. nii laa ko xalaate nii laa ko xalaatee ma jógee fii dem ba jox ko ko. ma jógee fii dem ba jox ko ko. mu xool ko. mu xool ko. yónnee ko ministre de l'intérieur. yónnee ko ministre de l'intérieur. ba mu ko ko joxee nag. ba mu ko ko joxee nag. ñoom bañ ko saytoo. ñoom ba mu ko saytoo. ñu xool xam ne xaj xat na. ñu xool xam ne xat na xam ne xaj na. wala mën naa indi jafe-jafe. wala mën naa indi jafe-jafe. ndax dañuy wax ne kuy wate ku ne. ndax dañoo wax ne kuy wate ku ne. sa carte d'identité. sa carte d'identité. fa nga war a watee dañ ko caa war a def. fa nga war a watee dañ ko caa war a def. bi sëñ bi xamee loolu nag. bi sëñ bi xamee loolu nag. mu ne kon jàmp na. mu ne kon jàmp na